bu loolu jàllee ma ñëw ci style vestimentaire xale jigéen yi nee nañ Viviane moo jël raw gàddu gi parce que moo sol lu méngoog terrain de basket xaw ma terrain de football loolu ngeen jàpp bu nekkee terrain de football Viviane moo jël raw gàddu gi ñi ci des ay robe de mariage la ñu sol ñi ci des ay kin biis ay ay kin biis ay aju usa ay ña ca des ñoom maanaam buñ doon ba ñuy dox seeni rob dañ koy dañ leen koy téel ñuy watatu ñooñu mën nañoo wax ne ñoom ay Kylie Jenner la ñu indi mais bu ñu demee nag wàllu culture est-ce que Viviane moo jël raw gàddu gi culture nag laa wax jaay Fra Sénégal jaay le drapeau jaay sunu culture ñun est que ñun sunu culture ay ay journaliste international ñëw di la seetaan lu mel ni la reine di mbalax est-ce que ñoom ni ñu solo la ñu war a solo loolu mooy sunu culture ñun